il a pris acte ne baax na dégg naa leen léegi ci man ci sama xalaat fu ñu tollu tey te loolu moo tax message yi ñaari président de la république yi mu am solo lool ci man. dinañ ci ñëw. pour man li am solo tey mooy réew mi ñoo ko bokk Sénégal ëllëg bu nekkee dóom. kenn du ci kenn du ci gagné. et bu nekkee doom ce sera de la responsabilité de qui. de tous les acteurs. des sénégalais de ou de ces sénégalais. hommes politiques qui se jouent de nos textes qui font des manœuvres. de nature à déstabiliser la paix et la sérénité dans ce pays là. déedéet si. su Sénégal nekkee doom ñëpp ci perte. waaw su Sénégal nekkee doom responsabilité xam nga ñan la ñi war a wax dox leen jàmm te waxuñ ko ñi war a wax nañ def jàmm te waxuñ ko. problème bu xasee am am na réew moo gis muy France muy États-Unis boo gisee États-Unis mu am amendement yu bari c'est que à chaque fois dañu am ay problème dëkk boobu mooy dëkk bu gën a développé tey te pourtant dem nañu ba diviser en deux le nord du pays di di xare ak le sud du pays en 1865 waaw déglul rek. Hmm. déglul rek. 1865 dama dama jàng dama dafa bokk ci li ma. jàng ñu ngi doon renforcer bokk ci li ma jàng. ci hmm. philosophie ne ñu ngi doon renforcer seen nation 1865. dafa bokk ci li jàng ci philosophie ne les peuples évoluent toujours marchent de manière évolutive mais l'évolution ne signifie pas toujours le progrès. problème mën naa xew xewaat français yi dañu mettre fin à la monarchie dagg seen baati buur ñu dem ba ci kanam ñu restaurer waat la monarchie sous Louis Philippe 1848 gis nga may mun a il faut que réew mi ñuy déglu ñu am xam-xam ñu wax leen il faut que ñuy déglu ñu am xam-xam États-Unis daaw géej rek la ñu jóge ci ay problèmes dañu wax ne c'est une démocratie achevée ay nit dugg ci seen euh, dalukaayu député yi foofu rajaxe ko ba ay nit dee ci lafa fa dee deewut Sénégal. ba l'instance suprême waxee waxaaral waxaaral tout est rentré dans l'ordre déedéet déedéet tout n'est pas rentré dans l'ordre si. puisqu'il y a eu des émeutes si. après il y a eu d'autres émeutes. d'accord mais ba, le cours du jeu a repris. normalement waa déet. waa déet ci diggante bi. cour suprême ba mu waxee. oh Maymuna. dañoo acté. Maymuna ci diggante bi yeneen am na fi yeneen am na fa état bi nga xam ne dañu abolir esclavage ñoom ñoo maintenir nit ku ñuul ci esclavage ba ñu dem dans les années 60 dans les civil rights même pays bi la du beneen xam nga lu may bañ ñu tuutil ñu te ñun tuutiwuñu réew moo gis dafay am ay problème dafay am ay jafe-jafe dafay am ay difficulté dafay am ay confli